asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax tey nag dañu leen indiloon waxtaan woo xam ne dañuy sottanteeg yéen xalaat ndaxte jigéen ñi léegi li ñuy def lu ñaaw la dañuy dem ci marché bi surtout période bii période tabaski wala korite ñu nekk ci marché bi di jël alal joo xam ne moomuñu ko. te xam ne léegi marché yi ñëpp dañu am caméra cachée xam nga ni yow ñu jël la filmer la dugal la ci réseaux sociaux yi xam nga ni loolu ñaaw la di nga am gàcc dinga toroxal say famille ak say dëkkandoo nan ngay mun a doxaatee ci sa biir koñ walla ci sa biir askan loolu gàcce la ay sama mbokk jigéen yi jéem leen bàyyi yooyu ngeen yem ci li ngeen am bu dee xartum ngeen sol bu dee vax ngeen sol lu ngeen am ngeen jël ko yemale ko ci li ngeen am seen doole ji ngeen am ngeen yemale ko ci yéen waaye ñu di leen weer di leen dóor di leen futti temps yi li ngeen di def simmi ba ñu set loolu metti na ñaaw na te jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy gis loolu dañuy am lu ñu lakk lu ñu naqari daf ñuy naqari lool te duñ ci mën dara yàq deru jigéen sama mbokk jigéen yi nañ leen muñ wala ñu dem a jéem a dem daane suñu doole lu luñ ci am muy suñu wërsëg ñu suturloo ko waaye dem ci marché yi dem ci magasin yi dem pour rek mun a sañse bëgg na sol naa cheveux naturel bëgg na sol naa jasineer te kii solu ko te yow wóor na ni yow amoo ko te nga yem ci li nga am yemal ci li nga am moo gën a rafet ah man de loolu laa leen di conseil bépp jigéen buy waaj a def loolu ngay jël yëfi jàmbur wala nga koy xalaata def maa ngi lay ñaan nga dellu ginnaaw bàyyi ko ndaxte gàcce la sa giiru dund du fay te gàcce goo xam ne nag say sët ak ay say sëtaat dañ koy seetaan naan kii sunu maam la woon wala sunu yaay la wala sunu tànta gàcce la ci ñoom sama mbokku jigéen yi góorgóorlu leen góorgóorlu leen man daal tey loolu la amoon li ma leen di conseillé di ko conseillé sama bopp gënuma leen a xam dara mais dafa ñaaw ñuy futti jigéen di ko dóor ci biir marché loolu ñaaw la maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen baal àq te di leen baalu àq ba beneen